Sidi Mokhtar borom kër Ngana Cheikh Sidi Mokhtar ah borom Touba di kenn ci Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara Ndiaye nag ñun bor daam pay keroog yi demee na keroog ak aatu dafa looy lu rëy ba noppi ne engagement yi bi lépp maa koy def waaye la waxoon def na yabal na délégation boole ci te na mën na ko ci bañ a fekk ndax lépp jiital na ko bis bi lépp yegg na loolu loolu na sëkk waaye yemu ca délégation ñëw na sëñ Xaadim ma nga nii toog ak sëñ Jili ànd nañ délégation ma sëkk loolu rëy na loolu tubaarkàlla waaye man mi demal ndakaaru xam naa ni Cheikh Bara Ndiaye kenn du moom yàlla na yàlla guddal fan wéral ko comme bisimilah sëñ Xaadim daaru san njaay tifli ni nu màgg ceex daaru asan njaay ceex daaru ceex daaru tifli ni nu màgg ceex daaru san njaay ceex daaru asan njaay Bambu wóolu moom la Bamba doyloo moom la Bamba doyloo jërëjëf sëñ Baara Njaay sama rakk la sama xarit ba ni xamante boobu man daal si Moustapha jikko sëñ ñaan Jóob di jàng sëñ Fallou Samb mii surtout sëñ Amar di sama wëllëre hmm. di sama xarit léegi lu waaye def danga koy leeral waa ko Cheikh Daara seen jaay yi ñii nag seen jiili ñoom ñëpp ak seen xaadim ñoom ñëpp dañuy samay xarit seen xaadim mi sama maa jàng te may xaritam looloo neex seen jiili mi leer na li may wax màggal gi ñu def laytu xadara bañ may engagé boobu yàgg na ma laxasu ci rek lu ñu wax mu ne maa leen loolu day daf ma dolli leen ni ci ay serigne ni ni daanaka mu sawal waye nak lu ko jar jar ko ni jar na ma ko Cheikh bala ñom ni jar nañ ma lolu am na ñoo xam ni mom gis ma may def lu mel nii moom na yob wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ne ci turuma santam ta di leen ziar bu baax di leen jaajeufal di massaw mboolem mbokki talibé yi nek ci tànt bi yépp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala tanki dikki ak yu delu yalla nako yalla yàlla def ko tanki njëggal xëpp ko suñu kaw ñu ñëpp ñu bokk jarño di sant bu baax kilifa yi bokkal jotaay bi buñ ci tuddee waa kër Cheikh mohammed lewin Bara ñi njëkk ñew ci jotaay bi té jël fi cadeau légui ba Daniel ak mboolem ñi fi jaar ñëpp suñu galas ak suñ maam na mi doon jël kàddu gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare suñ aatu mi nga xam ne moo waral bés bi ak mboolem jànkati xasida yi nu fekk yëpp ah, comme ni ko sëñ Malick waxee léegi rek day suñu wëllëre woo xam ne yàgg na lool ndax laytu xadar gi ñuy def ca Touba Darou Ndiaye at man ko njëkk a tàmbalee 97 ba fii may waxee yow daanaka moom lañ koy àndal te dara mësu cee ñaaw lépp rafet ndax booba daanaka jàng yombul waaye bu nu amee fukk mu jàng bu nu amee lu nu am mu jàng ba tey kon loolu ngor la te as gorkat bu la defelee lu gore lu xam ne as ci ngorom la ko def aj boo toog ak ñi war koo wax nag kon moo tax lii mu def ci leeral ñu mu ko leeralee àdduna daa baax ndax léegi commentaire daa xaw bari te gaañu fu ne la ñuy yóbbu ay mbir waaye looy def di ko leeral dana ci baax kon sëñ aatu dañuy ñëw ci kàddu sëñ Cheikh Baara dafa wax ne amoon na yéene lool teew ci bis bi ndax bis bi réne ci moom loo xam toll na fu toll na ci moom noo xam ne jaral na ko lu ne waaye yàlla xam na tey jii rek ci ngoon ba ngeen fay ñëw waajoon na jóge ndakaaru ngir ñëw ci tànt bi waaye yàlla dogal mu xat lool te ku ne xam na ko ginnaaw bi ngeen ñëwee ndakaaru di ko yëgal bis bi sax keroog ngeen tombeek muy sant sëñ Sidil Muxtaar muy 4 avril muy bis bi nga xam ne ci la ci lay sant sëñ Sidil Muxtaar di soxna May moom sëñ Siil Muxtaar kene bu ngeen ñëwee ngeen tombee ji xamu woon ne sax loolu am na fa waaye kon mépp mbir rek mu yàlla namm faaw rek ak tànnam da cay feeñ ba ngeen fay ñëw di ko yëgal bisu xasida yi da ngeen a fekk muy sant sëñ Siil Muxtaar te yéen seen lépp guy la seen lépp kër si ñaan ndax aatu mii bu jëlee bis bi tey dara jàll ci lenn Cheikh Baara kon am na fu jaar bokk nañ daara jàll lu ne séq nañ ko ba ba tey lépp di rafet te dara ñëw ci moo tax tey bi ko yàlla dimbalee xiirtal ko ci xasida yi bi mu amee bisin mu woo Cheikh Baara dara jaale ko ci ndax yàlla da leen a boole loolu it Cheikh Baara des ca ginnaaw ndax lépp lu ko war ci diggante mu aato démb ak bërki démb dañuy déggante lépp lu war déggante seen diggante ñu naan ñu ngi koy ñu ngi koy rafetal kon lii dong tëxut ñu naan Cheikh Baara ak aatu waaye seen mbir yàgg na lool aatu rafetal na lool ndax ma na kat ab jàngat xasee xasiida laa bëri naa ay xame bëri naa ay nit waaye fàttuwut nit yi démbam Cheikh Baara it mënoon na man kat fee ma nekk ca Ndakaar di faj aaja jaam ñi xam naa lool tëluma benn bis saaba platal ba tax kon du ci woote war du ci yable kon bu ci yablee kon yëg na suñu yëg na bis bi loolu faaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax suñu aatu Cheikh Baara wax ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla ci barkeb xaside yi yàlla na la xaside yi taxaw ci barkeb alxuraan ndax sa taxaway rafet na lol sa taxaway rafet na lol and nga ak pëseef ci li ngay def and nga ak bëgg tay rek mang ngi koy wax ndaw ñi nga xamne ñom la yabalon mi ñi egsee maa ngi koy wax señ suñu kat mat na jappalé bu baaxa baax ndax ni mat jappalé moy ku am pëseef la te ku am ak bëgg la ci xaside ndax euh lay do xadar ge ñuy def mom mi indi doon ko te Cheikh Baara mo wax nañ ko jëli mu ñu jàng ndax am njàngam maa ngi koy diglu te degguna te ànd nak pasif ñëw na fa leeru xadar màggalu bu njëkk daara ko def ñëw na fa jang te it jamono am fu mu tolloon rek waye teewuti lepp lu ñuy def dañ ko cee boole ngir ak dëggoom ci njàngoon moo ma wax ne yeen ñi and ak mom jappale leen bu baax ndax ku melni ne sëñ ku ko am war ko meuna dimbali li ngui meuna mën nak moy nag ko ci pasif ndax amna na foo xam ba fa nit tolle ci pasif wut and ku du ku mel non ku am pasif ndax moy tax lan bëgg ñu am ko kon ndaw ñi nga xam ñoy soppey ak ànd ak moom ci kuréelu xasida gi nañ ko jàppale bu baax te xam ne ku am pëstéef la ci mbir mi sëñ Cheikh Bara ne mi ngi koy seedeel ci mboole mbokki taalibe bi xam ne sëñ aatu mi koom ak bëgg ndax ak bëgg ak pëstéef moo ko indi fi ndax bëri na ñu ko mag ci njàng bëri na ñu ko ci jiitu te lim ci man wala lim ciy def wala taxawaay lim ciy def ñooñu mënuñu ko kon ak pëstéef moo ko fi ñu ko sëñ bi waxee léegi xasida daa am lu mu laaj loolu nag duñ taxaw duñ taxaw fii ci tànt bi di wax jànkër xasida naan seen la li nangam nangam waaye ñoom xam nañ seen warugar ginnaaw ña ngi nekk da ca nab nabi rek am nañ ci ak bëgg yàlla nañ ci yàlla dimbali te musul ci am ndog ba lépp luy ndog lépp luy am ndog daal yàlla nañ ci yàlla musal bu mu nekkee ci mbir ba cay xar euh, tànk tubéyam euh, jar naa ñaanal ngir mu yokk ca te mucc ca ndax ndog yi daa bëri te fakk yi daa bëri yàlla nañ ci yàlla musal ci barkeb alquran kon suñu Cheikh Bara ne sant na bu baax gërëm na lenn dong daal la am ci loo xam ne bu amoon lu koy lu koy lu koy xaw a metti te ab julli sax du wax lu may metti waaye lu am dogal bi yàlla la waaye daal lim ñàkk teew ci baas bi rek lay rëcc waaye bu sañoon da koy teew ànd ko ñun ndax soppe yaa ngi fi gis na taxawaay bi si aatu am ci moom ak bëgg gi ak gis gi lépp gis na yéen kon daal mi ngi sant bu baax suñu di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla taxaw ko ci barkeb xaside ñun ñi nga xam ne ñoom la suñu Cheikh Baara euh, yabalit gis nañ taxawaay bu mat sëkk suñu xaarit ñoom ak ak mboolem suñu laat ñoom ñëpp ak ñoom sëñ bi ñoom ñëpp euh, yëg nañ seen taxawaay seen bëgg ci yëf yi ndax ban jàppee yëf yi ba ñëwee dakaar boobu ba tey ñu ngi ciy déggante ak suñ jiili mi nga xam ne mooy rakkam ba yi tey berne yi yaatu na xéwal yi yaatu na mën na yoo xam ne kat seen yoon nekku ci waaye teewul lépp lu mu fi togg moo xam ci suba ba tey egsi na ca kër ga loolu lépp nag yëg na ko mi ci sant bu baax mu wax na moom mënut a waaye suñ jiili mi mu wokkal ndey ak baay nga xam ne ñoom ñaar dong la seen waajur bàyyi nee na moom it mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax bi mu ko waxee bis bi dana koy kon ko yittee daa bëri te yaa ngi Dakar maa la nekkal fi teewul naa la fa demal lépp lu fa war ci ab taxawaay danaa ko def moo tax mu ànd ak délégation ñu ànd sëñ am sëtu mi nga xam ne sëtu sëñ am sëtu la ak sëñ Cheikh Mbaye nga xam ne sëtu sëñ Daaru Asan la ak sëñ Abdou Dóor ak sëñ Mbàkke Njaay ñu ànd ak ñoom ñëpp ñëw ci tànt bi ngir lan teewal fi Cheikh Baara Njaay ngir sa jëmm ji ndax mën na yebal feneen nit ñàkk caa sawar waaye bi mu ñëwee si aatu sawar nañ ci lool te bii ñëw laajtewul ndax kër gi xam nañ ko bu baax a baax di tax xam nañ ko mooy séq nañ ay mbiri mbir moom si aat bi te lépp xasida yi la kon boog li ci dess dal li ñuy daana kaddu yi du gudd ndax ba toog ak ñoo xam ne li ngay wax ñu la ko gëna xam tey ñu la ëpp dégg ya gàttal say wax da ci ëpp solo kon dal kaddu kaddu sant la kaddu ñaan la kaddu ngërëm la yalla yalla dole taxaw dole ñu haar dole ñu sam ci barke Cheikhuna Ahmad al Khadim yalla nañu ko fekke ay ati at and ko wér ak xéwal yi yaat ñun may liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi bu baax jëm ju tedd ji di Serigne Bara nyai bokku ci njabotuk serigne daru hasan njay serigne bara nak don ku bax ndax man dem Dakar fekk ko fa te buma xole nit man ci sama jëmmi bok dina xam ak mbaax mi ngi ci yow ndax wolof fay wax ne lu fess ci ndab lolo moy rogalat parce que gis nga bo baxé ci sa xar kanam lañ koy xamé bo boneet ci sa xar kanam lañ koy xamé bu len nexé ngeen laaj ma lolo lu ko waral gis nga woyu pire indice gi kenn mënu ko dindi ci kanamam bu solon 3 morsat du jak kanam nga moy ñaaw ndax nonu indice lay mëna lek waye ki nga xamné ne nit ak yàlla la solon kilo dit ku ko xam xamné ne jangok serigne bara fekk nañ ko fa ñun gone lañ nak ñun lii xew doxuñ ci mooy dëbb sëñ baara bu defutoon daraat buñ ma joxee kàddu gi dama naan leen duma ko mën a ŋàbb waaye dama ko gis xam naa ko dem naa fa kon sëñ baara jàmbaar piir a ngi noonu nit bu la defalee teraanga bu ay bokkam teewee da koy sant xamal leen defal nañu teraanga sëriñ baara mbooleem xéewal yee xam ne moom lañ fi xéewloo muy ñetti fan yi laa wax sëñ baara moo ko fi def te loolu mat naa ci seere ndax dama bokk ci ñii doonuma ci ab jàmbur tey jii kat buñ ci doon lim luñ ci doon duma leen wax na leen mbubb mu ndaw ma la dama naan leen may trois morceaux ba bañ teg ci daamina ndax man xam naa lépp kon sëriñ baara ñu ngi koy sant sëñ jiili xamal nañ ñu ko suñu xol sedd na sëñ aatu miin nag lim ko defal ab bis buñ la ko tuddee bu amoon doom it du la ko teggale kon loolu na ko bir ne sëñ Baara tudd nañ ko doom ndax lii mooy ab cër mooy kóllëre te sëriñ Baara bokk na ci ñu njëkk a jox micro sëriñ aatu génn ko mu jàng ba ma koy wax yàgg na lool ñoo ngi koy ñaanal suñ borom guddalu fanam te wérulu cerem ndax loo sant santit a ah, yaa baax rek ngay wax te xam nañ na baax na yéen ñi ñu yónneet nim niñ leen yónnee mat ngeen sëkk nim leen ko defloo defe ngeen ko nim leen ko wax waxloo wax la ngeen kon ñi ngi ñaan. booba léegi noppiwul. sëriñ Jili mi. ba legi noppiwul moom i saa su li war lepp mi ngi koy def ba bi ba bis bi accès mom Jili mom mom du mom lañ la bolé lool kon lool am nañ ci géré ndax yow lañ doon jokkol guddee ak bëccëg bim biñ ñëwé ba yëgal ko bis bi bim jëlé téléphone am yow la wo daan ne ñooñu kat sama lepp lañ bolé na la ak ñom li ci war lepp xam nga ko nak mako defal te defal nga ko niñ ko wax yónniwuñ la nga wàññi dépasse ba ndax olof yi dañuy wax ne ku yokkut yaa wàññi te yow defe naa ne sax lala la sëñ baara jox làmm nga sa poos def ko ci ndax ku la gis xam sa comportement xam ne bëgg nga lu baax loolu ñu ngi lay doo gis ñun sëñ baara lañ gën a xam ci yow waaye nag kenn ku ne li ma la wax rek wuyu piir bu taxawee ñu xam ko waaye wàlliwu piir bu taxawee ñu xam ko te it nag ñun ci wàlliwu lañ la classé parce que bëgg nga lu baax silwiise nga kon doon taalibe Sëriñ Tuubaa fi ñu la mën a dëkkale mooy nit ku baax nga yaag ñi nga àndal ñëpp a ah, bu loolu jàllee teraanga yi la wax nag yépp dey yéen a ko fi indi ndax nit ki bu la defalee teraanga bu ay bokkam teewee faaw nga birneel ko ni ma ko gisee li ma la waxoon rek kenn ku ne tàng na sab kook ñëw sotti ci géej nag suñ baaram nag nañ ne mooy géej ndax dafay def lu yaatu ma teg ci sama bët kon ñoo ngi ñaan seeni teranga yalla na yok ndax taabi dafa xat way kon liñ ci bëggona jallale lepp da nañ ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon talal leen loxoy yi mu def ñaan amin barke sëñ Tuba Allahumma amin amin sëñ Tuba Allahumma amin sëñ xarit ji leen ñaan de amin amiin Njaay lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc